wala mbollem ku yàlla yett ngay doomu adama Cheikh Sidi ahmed Tidiane mo lay xettali moy xettali xolal wali yàlla yi cheikh mo leni xettali pour ñu xam yoon wani jaar ba ba ag ci yàlla buñ dajé yowmal qiyam ñi yàlla ñi yàlla bind ñëpp ku ci dem ba sa kanam ñëgg nga tiit ka la fay xetteli mooy Sidi Ahmad Tidiane maanaahu azamu aljilla bi xirtaasi cheikh bu ñu demoon géej gi muy daa ñu def garab yi ñuy pilim ñu teg àdduna bi ki fëy ku nekk ki bind di way taxul ñëpp peeg cheikh cheikh kenn xamu ko baytul wilaayat bi ñu dajalee wëli yàlla yëpp ci bindum néeg nga xam ne wala nitu yàlla yëpp bi ñu yëgee ni néegu wilaayaa ngi nii ñoom ñépp amuñu accès pour dugg fa bi ñu yëgee ni néegu wilaaya mi ngi nii mais kenn amagul accès pour dugg ci biir néeg bi ka leen xettali pour ñu am accès ca biir néeg ba mooy Cheikh dax ma Tidiane mooy misbaaxu salaat xoolal mooy miftaaxul kunuudi ba pare buñu duggé ñom gaay nara lambatu misbahu zalami moy lamp bay leral lendeum ga wa miftaahul kunuuzihi wa xatmul kulli lil hayy Cheikh sir Ahmed Tidiane moy serigne bo xamantene ab tariqam ken duko importer shamsul chamsul maarifi ma Cheikh ab moy serigne bo am ab tariqam ken duko importer di tukki diko yob amul Cheikh rew mo dem dem ca tariq dégg na tariqa ma nga fa d'origine u réew ma ngay fekk ñu yor tariqa bi d'origine u réew mi mooy mooy mooy jantu xam yàlla Cheikh si Ahmed Tidiane mooy jantu xam yàlla xoolal nitu yàlla yi buñ bëggee xam yàlla ñoom ci Cheikh la ñuy jaar Cheikh moo leen di tëbb luñ koy xamee moom mooy tëbb xoolal al aqtaabu kullu waqtin madatuhum minna hmm. nee na aqtaabi leer maanaam Cees bu romb maa leen di tëb du aqtaabi axwaasi abdaali afraadi ñoom ñëpp taxta imaarati ñoom ay jéebéer lan maa ngi ci kaw étage bi ñoom ñëpp ñu ngi ci bunt bi di xaar ma tijji شمس المعارف شيخنا تجاني شمس المعارف mooy jantu xam yàlla ñoom bu fekkee ne nitu yàlla yi jëmm lañ cheikh mooy maxanam xam nga maxana ba ku ko jël moo tiim ku sol maxana maxana maa la tiim waaw maxana maa nag ñoom nitu yàlla yëpp moo nekk seen kaw Maodo lii laa soxla woon nag نجلو طه شتيان موم دو ستو موسوا دومم لا دومم دوم ليرام لا اه واخي الله ماغي لا دي هو احمد بن محمد النجل الولي المختار نجل الجبي احمد الداني نجل طه ياسيني مودا ما واخني ba cheikh sidi ahmed tidiane nekke ci abi samoun xam nga Cheikh maam maa maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar baax a baax a baax Fall Fall xam nga Cheikh Tidiane li tax mbiram yéeme moom dong moo fi am taalibe buy gis yonent bi 24 fois par jour. Mouhamadou Damrawi moom dong Cheikh Tidiane man na kaay ma yëgal la bu may waxtaan day mel ni damaa damaa far faruma de kër googu dégg rek wax ma ma dem waa ji foofu la ma ne foo ko dégg wax ma ma dem fa Cheikh Tidiane moo am taalibe buy gis yonent bi vingt quatre fois par jour Mouhamadou Damraoui dem na ba àgg ci toog a Cheikh Sidi Ahmad Tidiane ni ko ni may gisee yonent bi dafa bari lu ko waral Cheikh ni ko li ngay sama taalibe tax boo nekkul woon sama taalibe ko am mi ngi Sidi Tidiane nee na damay ñëw ci jàkka ji yor njàpp di ñëw Cheikh Tidiane di ñëw jàpp sama loxo yor nga njàpp ma ne ko waaw mu ne ma gëmmal ma gëmm ñu dox ñaari pas mu ne ma xeppil ma xepp ñu taxaw jabalu arafat tayul ardoongo nee na ñu fekk ñeent ñu toog fekk kenn ku beru seen leer goo xamante ni kenn mënu gis xar kanam Seydi Aliou Harazim nee na ma dem ci ki beru ni ko yow yaakaar mu ne ma man maay xudar mi àndoongu Moussa ana qadiru Moussa waaw góor gi Assane ko leeral nee na qadar moom moo ko jox salaatul fatiha waaw góor góor gi Assane Salam ah, Assane Salam mi ngi ci njaaram ñu suul nitu yàlla bu mag la woon góor gu bari woon lasaraar la xamoon yàlla amoon cër nekkoon ci wilaaya foo xamante ni jàpp na ni moom moom pays ba moo fa gënoon a raw Morgi Xasan Salaam boobu nee na xudar mi àndoon ak moo ko jox salaatul faatih yaa ngi dégg nee na mu ñëw ci xudar mu ne ko yow yow la kan mu ne ko anaa xudar muusa mu ne ko lu waral jotaay bu rëy bii mu ne ko ñeenti ñee nga xamul mooy xulafaa larba mu ne ko kële ngay séen mënoo ko xool mooy Moustapha mu ne ko suñ jotaay bii li muy rëy rey sa sëriñ bu màgg bi nga àndal ko waral mu ne ko lu xew mu ne ko maamam moo koy takkal garaat tey boo xamante ni wëllu yàlla yëpp a ngi sonn pour bëgg am garaat bi moom dong la ko yàlla yelleel pour mu am garaat ba tey nag tey jii li ko yàlla di njëkk defal mooy maamam malayka yi mu àndal yëpp dana leen may tey salaat alfatiha yatalaqanuuna salaataka al uzma allati ma baadahu lil jinsi min qurbaani waaw التي لنا keroog Cheikh Tidiane loolu la njëkk am muy lu rëy loolu la njëkk am muy lu boo xamante ni nag moom Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yaa gis leer gi jóge Madina su dee bërëxet rek faas lay wàcc benn sëriñ donc attan yaa gis sëriñ bu fa taxaw bu la leer gi fekkee da lakk nga mel ni bettax ni muy seeyee noonu ngay seeyee Cheikh Sidi Ahmed Tidiane dong mooy ki attan leeru Seydouna Muhammad moo koy taaw décentraliser ko foofa nag buy décentraliser fii ci réew mi Maodo mooy jot wàllam décentraliser moom it loolu du sama wax de waxu sëñ haadi la hunaalika madadu saari ilal nujabaa'i min at-talaamid inda ibnu hunaalika alfaydu si haadi ne fii la leer gi wàcc ci Maodo mu xool na gars yi jox leen seen wàll Cheikh Sidi Ahmad Tidiane wali yàlla la boo xamante ni ñi ko xamoon ñëpp jëndewuñ ko keneen ñi ko xas ba xam jëndewuñ ko keneen dañu xam ni cëru yàlla mooy Cheikh Sidi ma Tidiane cër bi muy joxe di ko jox nitu yàlla yi yàlla soob na suñu borom mu jël cër booba teg ko ci loxo seydu na Cheikh Ahmad Tidiane moo tax Cheikh Omar Fouti wutul beneen tariq Cheikh Sidi Hadji Malick wutul beneen tariq ñoom ñëpp dañu xam ne tariqa Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ak tariqa boo mën a yor mooy tariqa bi ko tiim mooy tariqa bu dul fay ba yowmal xiyam mooy tariqa boo xamante ni suñu dajee yowmal xiyam ñëpp toog ñëpp taxaw borom tariqa bi danañ ko présenté ci kanamu yàlla ya ahla al asr wa hada naad hada imamukum وضاموا مدكم في الدار دنياكم من غير علمكم ثم رضى عن شيخنا التجاني ورقي من برع إحساني شيخ سيد أحمد التجاني يور لا صلاة ببن ولي ولي يلي يور وي صلاة الفاتحة ñu bi deg ñep ñu am cër amu ci kenn ko ci yor salatu bu upp doole salatu al fatiha inna dhunuba al ajalluha salata alfatihi mam Maodo nee na sunu bakkaar yi dafa mel ni taw waame serpent bi koy màpp ba mu woo mooy salata alfatihi Cheikh Tidiane radiyallahu anhu yàlla jox ko cër ba mu nekkee ci abi samun ba mu nekkee ci abi samun Seydi Mouhamed al Misri nekk di ko di ko jiite damraaw yi nekk diggam digganteem ak rasulillahi mu nekk ci xalwaam bu rëy booba fa la ko maamam fekk yàq zatan laa manaam nelawul gëmmantuwul amul ferñeent nelaw maamam ji bàyyi ko ba mu julli ñaari ràkk ba sëlmal maamam jiite ko yeneen ñaari ràkk bu ñaari ràkk yi jëkk yi quarante ans yi mujj yi quarante ans muy quatre yi dund maamam ni ko nag li nga yoroon lépp nag baax na naam waaye tegal lépp ci suuf xam nga lu tax man la nga teg ko ci suuf cheikh ni déedéet mu ne ko koo dem ci ñoom ca gaña la ko jox buy tàqali ko yow danaan la li nekk ci yow boo ko xamoon doo wut si li ngay wut si fii comme nag yow man maay sa maam maa la jur ana mu rabbika wa anta wala di xàqan ana mu rabbika wa anta wala di xàqan ana mu rabbika wa anta wala di xàqan fa takarrara salaasata marraati ñetti yoon sama doom sama doom ana mu rabbika xam nga lu tax yonent bi moo yar cheikh yonent bi moo yar cheikh te yonent bi yàlla moko moko yar waaw farabahu man rabbahu rabbul bariyati waaw seigne babakar si neena farabahu yarna sheikh cheikh man rabbahu ana kana yar ki yar cheikh mune rabbul bariyati yàlla mi yar mu yar yonent bi yàlla mi mom ñep tay yarate mo yar yonent bi mu yar cheikh seigne babakar nak ñi dem fas ñep mo leen gën xam fas waaw boy départ mo lay wax yoon bi moy leral yoon bi wa mata azamta li dawrihi faqsul li متى عزمت بزوره أرصد لفاس الباب كرسنا يا كامل أنوار والأسرار خذني غدا ومتى عزمت أي بزوره أقصد لفاس Barakallah, Barakallah. بارك الله yaa gis boo boo boo jëmee Faas xam nga Seydi Arab Ibnu Sayah moom mooy baabu cheikh te Arab Ibnu Sayah moom fekkewul cheikh de non ñu bari dañoo defe da koo fekk moom mu nga juddoo dëkk bu ñoo wax Meknes moom arab ibnu sayx li tax mu ñëw rabaat mooy sëriñam moo ko wax ni ko boo bëggee tijjeeku ci wàllu yàlla foo nga dem dëkk bu am géej fi mu ñëw kër sëriñam la foo mu tëdd soxna sin ko may baayam dafa ko wax ni ko soo bëggee am cër ci wàllu yàlla foo nga des fii ci ci rabaat Seydi Arab ibnu Saïd bi mu juddoo ba am ñaari at ci la Cheikh Fatou waaye moo bind buxdiyatul Mustafi moom waaw ba pare mooy buntu cheikh moo tax sëñ Babacar ne wa ida atayta buduraha zurhumu boo wàccee Kaasa noppali ko jëm faas nee na jaaral rabaat nga ziyaar weer ya weer ya mooy doomu cheikh Tidiane yi waaw ndax cheikh du du weer jant la ya wax léegi talaat la na تا محي الدين دفا بين بين تيري تدكو عنقاء المغرب في قتم الولاية وصمس المغاربي شيخ تجاني جنت وإذا أتيت بودرها زرهم بودك لي وير يا نغلن زيار سيدي عرب اك نيوني سو باري نك فاكسو لي فاس nga dugu djublu fas سو واتي فاس نياري فاس ام فاس قديم اك فاس جديد فاس بو نديك اك فاسو ليغي bu bees ñu bëgg a xam nag fi Cheikh tëdd fan la sëñ Babacar ni déet bu ma leen waxee fi Cheikh tëdd direct day yomb dama leen wax fi Cheikh tëdd quartier bi ko wër nu mu tudd nu quartier ba tudd mu ni tudd a bi dardaas tudd a wala xawlaha bi dardaas dardaas moo wër fa Cheikh tëdd ñu ne ko waa léegi exact fi mu nekk rawdu bi fi rawdu bi nekk dañ bëgg a xam mu ni war rawdu inda bulaydatin léegi nag léegi rawdu baa ngi bulay da léegi booy dem ci Cheikh Tidiane nooy def mu ne ittaxi darban duggal mbedd mu sew ma boo demee Fass xoolal soo demee Fass ba ak si kii pour nga dem foofu dangay dugg ci mbedd mu sew di def nii di yéeg bu sew Mamour jaar na fa bala ngaa jeexal mbedd mi nag uqsuda nga nga jublu ngënk mi loolu la gaa yi wax <laughs> gaa yi neen demul man wóoruma de te mooy tegtale nee na nag boo agsee ba ci bunt bi mu bëgg laa wax ni la cheikh ci jàkka nekk léegi nag mu ni la fadduxul yaa uxayya la woon mu dagg ni fadduxul uxayya duggaleew sama mbokk jàkka la nag boo duggee bu dee waxtu wu yelloon naafi la musalliman su dul waxtu wu yelloo yelloon la nuyul cheikh mutaaddiban mam ni na nga yaru lol ndax kat ki nga tok ci wetam moy ki ngeunk yalla yi di wër Seydi Alin Tamasini da daan def buy dox ci mbedd mi di dox ba romb cëgg tandarma gu ñor bu rafet danaan danaan tandarma bi yellul ci aduna kula lek ku du sama waja ci Tamasini ci tunisi lay tok nan tàndal ba bi sir ala Ahmad Tidiane tàndal ma bi doxal ba ci Cheikh Tidiane yaa ngi daarul miraaya mooy kër Cheikh Tidiane yi laata Cheikh dafa dëkk di commencé wasifa ci bunt bi la daan wasifa benn bi daa jullee tàkkusaan ba pare rek moom Cheikh Sidi Ahmad Tidiane bi mu jullee tàkkusaan ba pare di wëlbati ko pour jàkkaarloog mbooloo mi rek benn cëgg tàndarma ni tell ci kaw gars yi daal nit ñi xoolante fi ñu toog amul tàndarma amul dara lu leen wër ci tàndarma gisuñu fu ku fa sànni tàndarma ñu jaaxle di xool tàndarma ji rek Cheikh Tidiane jékki-jékki rek muuñ daan ne sama dof bala Seydani Tamasini Cheikh Tidiane ñii la am beneen bi mooy du tariqa boo xamante ne bu la neexee bokk bu la neexee génn tarixe bi tarixe boo xam damay jàpp bu ma neexee jàpp ba mu neex ma ma xëy daal ni foofu bokkoon naa boo ko defee xam ni seex du gaa yi de alaaj alaaji ngottiloo dafa ñëw di seex si Seydi Hadji Malick am bëkk néeg bu ñuy wax ku ñuy wax bëkk néeg la du woon bëkk néeg sax dafa nekkandi woon ci Maodo rek ñëw kar alaaji ngottiloo ñu waxante ñoom ñaar ba dënnam tàgg alaaji ngottiloo ni ko dog nga ci tarixa bi dugg ci Seydi Hadji Malick waxtaan ba pare génn bi mu génne Sidi Hadj Malick mu koy gunge góor gi daal ne Sidi Hadj xam naa turam waaye lii moo tax léegi du ma tudd tur rek mu daal di Sidi Hadj Malick góor gi da nee na dox naa ci tariqa bi mu ne ah kon yeeslul rek mu dem takki bagaasam dikk ne ko ah ma li may sonn ci yow yëpp kii dikk ne ma dog naa ci tariqa bi nga ne naa yees dem dem ci geneen kër dem fa barke bi dikk mu am kër am teraanga lépp dikk alxaaji ngottiloo di doxantu jaar ca dëkk yooya mu séen ko daw ba ci moom gaare ko di ko bëgg a war ne ko léegi am naa teraanga ni kon góor gi ndax xame nga ma alxaaji ngottiloo ko xame naa la mu ne ko waaw man maa nekkoon ci sa waa ji <laughs> ah foofu ba ma ba jógee yàlla damaa teral nekkoon mag mu mën a dallu bàyyi ko mu wax a wax ba daaneel mu ne mu ne xinneet moom ne ko barke Alaaji Maalik moo des ci yow te bis bu jeexee nga yëg ko bis bi barke bi jeexee kër ga néegu ñax bi moo takk ci kaw moom jeex moo tax tariqa bi du tariqa bu ñu dugg ak a génn beneen bi mooy tariqa bi mu du tariqa boo xam te ni da nekk benn kàccoor fële ñu naan la yii yow moom tariqa bi soxla wu la yow booy bul ñëw moom yow moom tariqa bi soxla la ñooñ la tariqa bi soxla da leen di xëy def leen ñuy wëlu yàlla zax kenn la ci bo demé ci naylul mana euh, naylul naylul amani zahnun talib Cheikh tidiari la way waa dan daan karaté la di jël gars di nangu sen alal di len duma Cheikh tidiani mo genn rek ak xaalam genn rek mom Cheikh Sidi Ahmed tidiani bind lettre ni dem len ba fi zahnun nek ngeen talal ko lettre cey borom xamante ngeen de yéen a ngi joxañante rek mo zahnun Sidi Ahmed tidiani ni dem leen yóbbul ma lettre bi boo leen demee rek tàllal leen ko sëñ Abbas Sall way na ko wayu rëy ñu dem ba fi sax nu nekk ñu yuq ko ya sax nuun ba mu génn ñu tàllal ko lettre bi ndakate lettre bi léeg-léeg nitu yàlla way way wa ndakate da koo tooke léeg-léeg mu bind ndakate bind ma da koo tooke ba ñu tàllalee lettre bi rek mu def mu mel ni lu mel ni melax moo dal ci dënnam rek mu yuuxu naan dallu nii ala Ahmad Tijaani ay waay tegtal leen ma fu waa ji nekk ponkal la ci tarixa bi ponkal waaw Abdoulaye Mouhamed Ibn Abdoulaye Kansuusi baram jaysul mu ram-ram li faqiwul Kansuusi nga xam ne bu daan werd ba xaalam dikk da ngay dégg ji ni muy baajee te kooku ci taalibe Sidi Ahmad Tijaani la laa wax de tariqa bi bëgg cee bokk taxul nga xoola nga bokk ji da ngay sonn wa kam unasin tamannaw bi suluki ala uslubihi ma qada waaw sëñ Babacar nee na léeg-léeg nga dis ponkal muy xaaral xaatar yi fekk na moom gars yi li licencié nañ ko bu teg nañ ko nële nga fekk koo xamante ni ma nga ca pay ba yërëm yaa nga tilim ma nga jàpp ni kii sëñ Babacar Mansour moo ma waxoon ni ma ñi yàlla am ñim ci solal mbasin bariwuñ billaahi moo ma ko wax benn koor fii ci gël li ma ñu yàlla am ñim ci solal mbasin bariwul moo tax bu leen xeeb yàlla ñu yàlla defal sutura si Habib lii yàlla nga ko yàgg a teewe yow sa mag yëpp nag waaw. Malick moo ñu ko leeral la di nuyu Serigne Habib Fall bu baax di suñu xarit di suñu wëllëre di suñu soppe yàlla boole nu nag ngir jëmm yàlla. moom woy juram mu jigéen baayam bi ko jur ak suma baay ñoo doon ànd ñuy njabootu alaaji Mansour kon moom li ñu boole yàgg na ci biir xame gi ma ko xam ci la ma yàlla booleet Babacar mii di magam yàlla boole ñu ñu xame xame bu rafet xame boo xamante ni dana ma woo waxtaanal man ci dara ma ne dinaa ko woo waxtaanal moom ci dara di nuyu seen wayjur wu jigéen bi nga xam ni moo nekk ci biir kër gi di nuyu seen mag ñoom ñépp di xaaja Moustapha di ko nuyu di ko ziyaara di leen ñaanal yàlla lii ñu def ngir jëmmi góor gu sell googu nekkoon fii yal na ci yàlla dotti ay leer nangu ko liñ fi ñaan lépp jox ko muy ay leer yi ay waame leer ca barzaq njaboot gi mu fi bàyyi yàlla boole leen iir sàmm leen su ma nuyoo sëñ Habib rekk nuyu Babacar nuyu naa ñëpp di nuyu tabaarakallaahu suñu waa kër Baye Alxaaji Mansour Fall nga xam ni ñoom di suñuy doomu baay waye di suñu ay sëriñ ñu nek suñuy sëriñ waye yalla boole ñu nak boole go xamanteni mi ngi jaar ci sëriñ Habib ibnu sheikh Seydi Abou Bakar si ibnu Alxaaji Mansour mu xamale ma ak ñoom waye xamé bi rafet ba jéggi dayo mu lay dabbaax gi ni tok ak njabot gi yépp ñoom ñëpp ñoo and ñëw mu tuddé dabbaax rek tudd ñëpp di leen nuyu di leen ziar gëj nañ maa gis gëj naa leen gis waaye jamono bee tëradi rek maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu nag waa kër Seyduna Muhammad yi nga xam ne ñoo toog nga xam ni ñoom dañuy dañuy xëy rek nekk ci biir nit ñi nit ñi defe ne dañuy woy rek pour am xaalis fekk na ñoom dañuy woy pour jaamu yàlla ndax tagg yonent bi jaamu yàlla la tagg yonent bi jaamu yàlla la ci ki xam ki muy tagg yonent bi doo ko tagg ci sa xaal moom ci xaalam nga koy tagg boo bëggee jariñu ci moom fors nga xam moom ban la ko yàlla teg donte nag yonent bi peeg ko ci ñaar mënul nekk mooy nga xam xadduroom xam miqdaaram kooku yàlla mayu ko ñu bàyyi mën naa ne sama boroom sax moo ko xam moo xam xadru yonent bi xam miqdaaru yonent bi moo tax ñun mënuñu julli ci moom moom yonent bi sallallahu alayhi sallam yàlla rek xam na muy jullee ca moom ndax moo ko peeg Moustapha moo wax ni maa arrafani xeyru rabbi man kenn xamuma ko du yàlla eh, di nuyu nag Pape xalifa di ko teg ci loxoom Pape Khalifa sama xarit la ba ma yàlla di boole moom booba ñu ngi lekkandoo cere suba teel ci sedd bu metti xame bi ma xamee ak moom moom Pape Khalifa Abdourahman frère am ñooñu xame bu dëgër la du xame bu ma cof xame bu ma tée la ndax li ñu boole booba xam-xam la bokk nekk ca daara Maam Lamine Kebe nekk fa sonn nag sonn woo xamante ni tey sonn ga coono bi mu ngi wàcc donte jeexagul mu ngi wàcc ma koy nuyu nii mu seddee nii moom Pape Khalifa nii la mus a seddee mën a maslaxa ak ñépp nag Pape xalifa mën naa ànd ku ne ndax dafa mën a maslaxa waaw di ko ñaanal yàlla tagg gi muy tagg yonent bi yàlla na ko yàlla sàmm moom ak taggkatu yonent yàlla muhammad yëpp di nuyu nag waa kër suñu maam euh, suñu maam euh, góor gi Ahmad Njaay ca Bushra suñu doomu toomaa sëñ Habib Njaay waliyu yàlla boobu nga xam ne dafay nëbbatu rek sëñ Habib moom kenn du ko xam déedéet mën ngay jëflanteen moom mille ans waaye xam ko jafe na ndax li tax nit nga xam ko moom da ko nëbb ci boppam waaw waaye nag bu ko bàyyam di tuddee sëriñ Habib booba sëriñ Habib nekk na sëriñ Habib kon tabaarakallaahu di ko nuyu di nuyu njabootam gi fi toog di nuyu sëriñ Babacar ja suñu wëllëree di yëgal ñëpp le 5 mars takusan bi mi def fi ci parcel inte 5 man ak Serigne sid ahmad bu Serigne babakar Mansour sak année ñoo fi daan tew Sidi mbay di ko way ak ñom pap Khalifa tabarakallah inshallah euh ñi ci inviter ñëpp nak na ci ñëpp tew imam si ñi ngi lay nuyu di nuyu mbollem ku fi tew rek suma topé dina nuyu di nuyu sama collègue de

léegi la ma buux téléphone bi naa ma jox ma deux cent quarante rek man man yor ma deux euh, di di di bég rek bu baax a baax di nuyu nag suñu mbokk mi Hadji Wilane TV di ko nuyu barki démb la am ay jaamu yàlla yu tuddee seen bopp soppee Habib Fall man sopp ma jafe na man amul ma nit di soppee Seydi xaj Malick xëy na la ma nit di soppee ñu dajaloo di ay nit yu bari jël benn saal ni dañ may delloo njukkal